salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nuyu naa leen ñun ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant donc tey dama leen indi gamme fenugrec fenugrec euh, beneen tur bi mooy xulba donc déjà fenugrec vraiment euh, gamme boo xamante ne euh, am nañ ay produits yu bëri. suuf fenugrec donc am nañ saabu bi lem bi huile bi poudre bi grain bi crème bi donc ça dépend si li nga bëgg donc déjà la damay commencer si lem bi donc lem fenugrec mooy pour ñi nga xamante ne dañoo bëgg a mel ni man macha allah voilà euh, am yaram euh, day faj anémie c'est bien pour plein de choses voilà donc fenugrec moom c'est vraiment top par la suite euh, là dañoo am savon fenugrec donc savon bi c'est à base de fenugrec 100 pour cent donc lii macha allah baax na pour raffiner teint bi su ngeen bëgg mel ni man encore macha allah. ngeen ñëw ngeen essayer saabu fenugrec bi parce que vraiment daf lay jox teint bi nga bëgg te ba pare amul benn effet secondaire amul benn hydroquinone aussi à l'intérieur c'est 100 pour cent bio donc baax na pour peau bi baax na pour mag baax na pour xale c'est pour tout type de peau aussi donc day raffiner peau bi jox la peau bu rafet jox la teint bu rafet macha allah après sa dañuy jàll ci huile fenugrec ak crème fenugrec bi donc déjà crème fenugrec bi c'est à base de karité ak fenugrec et autre chose aussi à l'intérieur donc lii mooy pour jigéen yi nga xam ne dañoo bëgg a yor partie hanche bi ak partie wen bi et tout euh, voilà macha allah donc lii da nga koy boole ak huile te ni ma la waxee ci euh, lem fenugrec le fait que euh, baax na pour prise de poids même chose comme huile bi mais bi léegi ak crème bi doo ko naan da nga koy diwoo donc ñaari ngay mélanger di ko diw. bi nga xamante ne euh, da nga bëgg am xam nga tuuti <laughs> tuuti choco choco quoi voilà. donc su ñu paree si loolu damay jàll si euh, si euh, grain fenugrec ak poudre bi aussi donc loolu presque même effet la am ak euh, lem bi mais aussi baax na pour tens baax na pour wàcce tension baax na pour ay problème ay tànk yuy metti yaram buy metti dafa lay jox appétit baax na sax pour hémorroïde aussi bi bokk na si traitement hémorroïde bi parce que déjà fenugrec macha allah day faj 121 feebar ci yaramu doomu aadama cent vingt ans laa leen di wax nii de donc ngeen ñëw ngeen essayer fu nekk pour bépp problème ngeen am euh, su ngeen ñëwee tamit ngeen consulter wu comme ça ngeen am produit yi nga xamante ne day ànd ak grain bi wala ànd ak lem bi pour euh, faj seen jàngoro merci beaucoup